waj'alnaa mimman yastami'uuna al-qawla fayattabi'uuna ahsanah wa adkhilnaa bi rahmatika fi ibaadika as-saalihiin yaa rabbi akhrijnaa min zulumaati al-jahli wal-wahmi ilaa anwaari al-'ilmi wal-ma'rifati wa min wuhuuli as-sahawaati ilaa jannaati al-xurubaat sëñ Mbaye maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu fépp foo xam ne téléspectateur u Malben mu ngi fa ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu comme ni nga ko waxee. bés bi tey ñu ngi ko jagleel ci dénkante waxtaan ci point boo xamante ne nii dafay nekk loo xam ne mën na jëriñ euh, même bu jëriñut ci matal mais bu jëriñee même bu dee benn nit wala ñaar euh, dafay fekk ne boobaa objectif bi nga xam ne moom lañ ci namoon boobaa dafay fekk mu réaliser wu. comme ni nga ko waxee nag thème bi ñu bëgg a waxtaanee mooy al waxtu te mooy li nga xamante ne nii mooy temps. nekk na thème boo xamante ne nii euh, pour waxtaan si dafa nekk géej gu yaatu ndax foo sooboo mun ngaa xuus jëm gauche wala droite wala ci kaw wala ci suuf waaye ñun dañ ci tàmm rek comme temps bi bariwul ñu segg si tuuti loo xam ne doomu aadama bi bu ko dégloo mën na ko jëriñ euh, li si njëkk mooy dafa am benn borom benn philosophe bu am solo boo xam ne dafa wax ne mu ne yàlla <clears throat> euh, li nga xamante ne ni mooy doomu aadama bi mooy dafa am ñett ñetti façon ru ànd ak nag wax loo waxu philosophe la ñun xam ne nuñ koy déggee ak explication biñ ci namm mooy ne dafa am ñetti ruux yoo xam ne moo composé doomu aadama bi ñu ne koy ñan la mu ne dafa am lu ñuy wax appetitive soul ak emotional euh, soul ak rational soul mu ne ñetti soul yi maanaam ñetti kii yi moo composé doomu adama mu ne appetitive soul mooy ruux bi nga xam ne mooy tax doomu aadama bi bëgg maanaam dama bëgg lekk damaa bëgg naan damaa bëgg tukki damaa bëgg kër damaa bëgg def damaa bëgg damaa bëgg yooyu yëpp sa appétitif soul bi moom moo koy def sa émotionnel soul bi mooy li nga xamante ne nii da ngay jékki-jékki rek comme tey masalan nga ne Sénégal tey mu ngi fubal ak beneen équipe far gi nga xam ne moom ngay faral Sénégal te xamoo lu ko waral loolu mooy émotionnel soul bi mooy waral léeg nga jékki-jékki gis ne jooy nga jooy bi nga jooy lu ko waral loolu émotionnel soul bi mooy def loolu am bi nga xamante ni nag moom mooy rational soul mooy bi nga xam ne moom moo lay régler lu tax moo lay régler ndax boobu mooy bi nga xam ne su fekkee ne bëgg nga dara boobu mooy laaj li ma bëgg nii lu tax ma bëgg ko bañ naa dara li ma bañ nii lu tax ma bañ ko boobu nag philosophe bi muy wax mu ne ñetti ñii buñ àndee di tukki maanaam kan ngay jox mu dawal su fekkee borom appétitif soul bi doo ko jox émotionnel soul doo ko jox rationnel soul ngay jëf masalan dañuy joxe benn xissa boo xam ne masal comme tey boo xoolee xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Medina Cheikh Ibrahim di nuyu Imaamul nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dëkkee Medinatu Cheikh Ibrahim di nuyu suñu euh, buntu ci yàlla muy Maulana Cheikh Wuldu Xayri ak euh, su nga xamante ne nii mooy fi nga xam ne fa lañu dëkk muy ngaan saer di nuyu suñu sëriñ suñu waajur yëpp ñu ngi leen di nuyu Euh, moom dafay nettali benn xissa boo xam ne yow boroom xam-xam bi mën nga am loo ci segg parce que nee na bi muy jàng alxuraan sëñ daaraam dafa ma dóor <clears throat> dóor bi ma dóor sama yaram tërgën mu ne ma kontaan xam ne su ma demee tey si Baye Niass su ma ko ko nettalee bàyyi dina ma bàyyil jàng te dina créer naar bi problème kooku bi muy dem ci Baye Niass moment boobu nekk xale émotionnel soul moo koy yóbbu maanaam ruux boobu xel moom moom moo koy yóbbu léegi bi mu ñëwee ci Baye li mu yaakaaroon amut dafa yaakaaroon ne Baye dafay mer mais Baye rasonal suul la am maanaam am na xel moo xamante ni xol boo xam ne ruux boo xam ne lu mat la moo tax bi mu ñëwee mu gis tërgën ji mu ne ko ah dañ la dóor ba nga am tërgën ci alxuraan yow de ñeenaa la gis nga kooku maanaam kii lim dem ak kee lim fekk loolu mooy nekk li nga xam ne loolu la nekki soxla dëgg-dëgg soo xoolee yar googu ñu ko yar moo tax moom itamit bi mu demee ba màgg mu ngi koy nettali xissa boo xam ne bi muy jàng alxuraan doomam mu gàgg doomam gàgganti ko gis nga foofu bi ko doomam gàggante fekk moom tamit yegg si na ci xel mi nga xamante ne nii mooy raisonnable sol loolu moo tax mu nangu gàgganti boobu ba pare di ko wër adduna bi di ko nettali kon doomu aadama bi yii la soxla léegi yow nit ki rasonal sol boobu boo ko dégloo boo dégloo sa xel mi Baay Ñas radiyallaahu anhu dafay wax ci sirrul akbar <clears throat> mu ne doom aadama bu nekk war naa def inti baax intibaax intibaax masalan tey mooy nga tëdd nelaw ba 2 heures du matin wala 3 heures du nga bëreet jóg waxtaan ak sa bopp ne man fan laa jóge fi ma nekk ak fan laa jëm maanaam ngay jox sa bopp xel moo xamante ni di waxtaan ak sa xel maanaam lan mooy sa wareef mu ne intibaax boobu bu ko nit ki mu ne huwa an yanzurul mar <clears throat> maanaam mimma tutaalibu bi xadratu xaaliqihi wa raziqihi wa darrihi wa naafiyahi mooy lan mooy al ibada al xaalisa al muxlisa bàyyi mu ne nit ki war naa def intibaax intibaax boo toogee déglu ba pare daf la ko wax ba pare jox la conseil ba pare jox la résultat bi mu ne boo xalaatee ba pare lan ngay def mu ne waan yanzurul maru ila maatu taalib bi mooy ki xool lan mooy xam ne pays bi nga xam ne moo ko sàkk lan la bëgg ci moom maanaam yàlla mi ñu sàkk ñun yàlla lan la bëgg su ñun lan la namm su ñun xam nga kooku dimbali na la nee da toog nga def inti baax ba pare na mu ne la booy inti baax nii ngay def nan ngay def mooy da ngay xool pays bi nga xam ne moo la sàkk pays bi nga xam ne moo la bëgg fa nga sosoo lan la namm ci yow ba tamit réponse bi mooy lan mooy ibada al xaalisa al muxlisa mooy jaamu yàlla boo xam ne jaamu yàlla bu ñu sellal la bu wër loolu mooy li nga xam ne bu fekkee def nga intibaax loolu nga war a déglu ci sa bopp kon kii dimbali na la ba pare mu indil la aaya alquran wa maa umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin kon yàlla moo ñu digal li jaamu yàlla boobu nag lenn daf ñu ko jox mooy yàlla bi ñu joxee jaamu bi ba pare yàlla daf ñu jox temps maanaam jox ñu waxtu ba pare jox ñu barab boo xamante ne ñun ci lañ nekk waxtu boobu moo ñu seq pour ñu réaliser loolu dafa am boroom xam-xam boo xam ne dafay wax mu ne laka indallaahi sanawaat mahduuda yemu fa mu ne wa ashurun mahduuda yemu fa mu ne wa ayyaamun mahduuda wa saaatun mahduuda wa daqaa'iqu mahduuda wa sawaan mahduuda yii yëpp nag bum la ko joxee am lu la seq li Ahmad Sawqi doon wax daqaatul qalbil mar'i xaa'ilatun la innal xayaata daqaa'iqun wa thawaan mu ne nit yàlla daf la jox ay at yoo xam ne da koo limité parce que amul kenn koo xam ne at yi dafiy nekk di la fi fekk di la fi fekk rek ba faw kon yàlla dëxëñ na ci yow at mais limité na ko dëxëñ ci yow ay weer mais limité ko dëxañ ci yow ay fan limité ko dëxañ ci yow ay heure limité ko dëxañ ci yow ay minute limité ko dëxañ ci yow ay seconde limité ko léegi bi la ko yàlla joxee temps boobu yow mu fekk ci sa jëmm dafa am lu lay contrôler ànd ak yow mooy bi nga xam ne loolu la sa xol bi sa battre sa kër bi nu muy battre dóor boobu muy daal dóor di battre loolu la saw Sawxi doon wax di wax ne daqaatul qalbil mar'i xaa'ilatun la maanaam sa xol bi battre bi muy battre di dóor mu ngi lay wax toujours ne innal xayaata daqaa'iqun wa thawaan maanaam dund bi bul musa fàtte ne dund bi ndekkee ay minutes la rek ak ay secondes léegi su fekkee weer yooyu at yooyu minutes yooyu secondes yëpp ñëw na daxañu daxañu daxañu di la lem yow fexew ba réaliser si dara mooy temps boobu yàlla jox la daxañ ko si sa jëmm ji yaa ngi koy pett mais doomu aadama dafa dëgër bopp te yàlla bi mu ñu bindee jox ñu heure bi jox ñu temps bi pour ñu nekk si waaye toujours dafa mel ni am nañ am na loo xam ne mu ngi wax ak ñun mais ñun toujours ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi dëgër bopp parce que lu tax mooy am na loo xam ne dafa mel ni mu ngi lay wax le maada qaddamta yaa axi maanaam yow nit ki lan mooy li nga réalisé si sa temps bi la yàlla jox lan lan mooy li nga ci réalisé yaa ngi dégg am benn boroom xam-xam boo xam ne dafay wax ne euh, ila mata anta bi lazati wa anta nga demaat ba si kanam euh, imaam saafa di la wax ne taasil ilaha wa anta tazharu hubbahu mu wa anta tazharu hubbahu muy dem ba ci kanam mu ne booy bu mu lay waxee law kaana hubbuka saadiqan la ataatahu innal muhibba liman yuhibbu mutiyaw maanaam liy wax ak yow mu ngi mel ni dafa am xaatifu rabbaani wax ak yow naan la ilaa mata anta maanaam li nga xam ne moo la occupé ba temps bi la yàlla jox mënoo ci def dara parce que su fekkee yàlla bi mu la joxee temps lim namm ci yow mooy nga jaamu ko mooy nga topp ko mooy nga liggéey li tax defoo ko rek bànneex la ci yow moom la lay bànneex boobu moom la lay wax bànneex boobu ne la yu neex yi nga topp muy bànneex yi kan ngay toog rek doo am temps am nga bañ koo lijjanti est-ce que xam nga ne lépp loo jiital lépp loo jiital dañ la koy laaj yaa ngi dégg ilaa mata anta bi lazati masghulu maanaam yi nga xam ne mooy yi nga jàppee bànneex mu dëxëñ la téye la kañ ngay toog rek doo am temps mu nay mel ni looy tekku nag ni la ilaa mata anta bi lazati masghulu wa anta an kulli ma qaddamta mas'ulu lépp loo xam ne def nga ko ci temps bi la yàlla jox ci at yi ci weer yi bés yi euh, heures yi minutes yi secondes yi lépp yàlla daf la koy laaj ba pare mu indi la wax bi nga xamante ne mooy imaam Saafé maanaam tazhar maanaam yaa ngi wane ne bëgg nga yàlla taasil ilaaha wa anta tazharu hubbahu yaa ngi wane ne bëgg nga yàlla te yow yaa ngi mooy yàlla parce que yàlla lu mu la jox mooy jox na la temps jox la barab mais lim la ko joxee mooy utiliser woo ko ba pare nag mu ne loolu haada muhaalun fil ba badiiw mu ne loolu mënul nekk parce que yàlla moo la bind jox la ko ba pare yow nga ne bëgg nga ko te li taxoon yàlla indi la ko pour nga réaliser defoo ko mu loolu du dëgg ba pare nag mu ne la su fekkoon ne bëgg gi nga xam ne moom ngay bëgg ne danga nga woote da nga bëgg yàlla mu ne bëgg googu danga koy topp ndax nit ki ki mu bëgg daf koy topp. soo xoolee kon ba tey nit ki temps bi nga xam ne moom la ñu yàlla jox pour ñu bañ a wu toujours ci leneen nañuy bàyyi xel toujours li nga xam ne mooy tëgg suñu batterie mooy daqaatu xal bir mar i xaaidatun lahu innal hayaata daqaayiqun wa sawaab kon moo xam man ndaw bi la moo xam yow la moo xam keneen kenn ku nekk toujours nay déglu batterie kóoram boobu di xam ne ah ndeke man sama temps mu ngi wees te man ndeke defaguma dara soo xoolee Omar ibnul Abdul Aziz borom xam-xam la boo xam ne ñun ñëpp ñëpp defe naa ñëpp jàgg nañ histoire am lu tax ñu tuddee ko xaa xaamisatul xulafa maanaam juróomeelu xalifa ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam te boo xoolee digganteem ak ki nga xamante ne moom mujj nekk xalifa yonente bi salallahu alayhi wa sallam ay at ay xulafa xalifa xalifa yu bëri dox nañ ci mais moom jikkoom ak xamoon mooy kan ak xam temps bi ko yàlla jox ni mu koy utiliser loolu moo tax dundam mu mu maanaam mu réussir ci ba di lay dénk yow mu ngi lay bàyyiloo xel ne la temps bi lii la al leylu wan nahaar yaamalaani fiik guddi leylu wan nahaar yaamalaani fiik mu ngi lay bàyyil xel ne dafa am ñaar la yàlla booleel te ñaar yooyu mu ngi bokk ci temps muy guddi ak bëccëg Omar ibn Abdul Aziz mu ne la fexeel yow ñoom ñu ngi profité si yow parce que yow doomu aadama boo yeewoo yaa ngi toog defoo dara bëccëg bi 12 heures de temps la guddi gi 12 heures de temps muy 24 heures bëccëg gi ñëw na raw na la guddi gi ñëw na raw na la léegi temps boobu vingt 24 heures boobu ñëw na liggéey ci sa jëmm ji mais yow liggéeyoo ci moom dara léegi yow mi nga xam ne yow yaay liggéeykat bi nga xëyee 7 nga jóg. dem liggéey wala bi nga xëyee 7 yaa ngi ci xam-xam wala bi nga xëyee 7 yaa ngi ci tool yi yow gudd bëccëg gi yaa ngi liggéey ci kawam mais moom liggéeyul ci sa kaw guddi gi kazalika nekk noonu am na ñoo xam ne seen guddi maanaam fi mu leen fekk fa la leen di bàyyi mais am na ñoo xam ne seen guddi ñu ngi ciy profité ne xaaral ma jege ji sama borom xaaral ma def ci li nga xam ne loolu la yàlla bëgg xaaral ma def ci xaaral ma def ci borom xam-xam yi boo xoolee bàñes daf koy wax boo xoolee si ci diwaan cité la abal xal bu illaa an na mu tayyama xalifa xaraamin bi nabii muhayyama xalifa xaraamin bi nabii muhayyama abiitu dégg nga ma abiitu bi leyli timmi sahraana munsida li zikri alladi xa taaba bad an wa maxtama abiitu mu ngi fanaan ci guddi gi nga xam ne mooy guddi gi aji mat te léegi tamit bu ñu ko waxee mooy bu weer bi demee ba fukki fan ñaar mooy leer gi muy leer bàyyi mu ne mu ngi fanaan ci guddi gi aji mat ba pare nekk koo xam ne ku foog la foog mooy ñàkk mën a nelaw mais bi mu ñàkkee mën a nelaw temps ci lan la ko consacré maanaam temps am ci lan la ko def yaa ngi dégg. imaginer nit ki lay wax di la jox conseiller ne mu ngi fanaan ci guddi gi mat di foog saxaraanam bi mu fogee ba pare la def mun ci dan di sadd parce que bi mu fogee mënoon naa nekk ci leneen mais bi mu foogee dafa nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mun si dan ba pare di sadd li zikri lazi ngir fàttaliku ki nga xam ne xattaa ba teey na ba an tàmbalemaayam wa maxtamaam ak jëm te kook mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne tàgg la boo xamante ne nii ah, dañ ko ko taggoon kon kii guddim bi xam na ci lan la tënku loolu moo tax guddeem bi bi mu ñëwee mu jël temps bi mu jox ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee nga del siwaat ci Omar ibn Abdul Aziz mu ne la guddi gi ak bëccëg gi ñu ngi liggéey ci sa kaw liggéeyal si ñoom mu ne la nag guddi gi lu mu gudd gudd gudd il faut que rek fajar nuyoo si te doo xam ne dëgg guddi gi lu mu gudd gudd il faut que rek fajar yegg si mu ne fajar bii tamit bu yegsee lu mu gudd gudd gudd il faut que ñu wàcc ci bàmmeel kon gis nga yii moo seq doomu aadama bi soo deltoo ci ginnaaw at yi weer yi bës yi euh, heure yi minute yi cers yi lépp boo ko dëxëñee après fan la lay mujj fii rek la lay mujjal léegi moo tax yow nit ki temps bi nga xam ne moom la la yàlla jox ci lan nga koy def ndax temps la boo xamante ne suma temps bi dama koy jël def ko ci ci fo dama koy jël def ko ci ci caaxaan dama koy jël def ko ci loo xam ne man mënumaa jëriñ dara dama koy jël duma ko def ci xam-xam léegi ci noonu ngay nekkee ci noonu ngay nekkee ci noonu ngay nekkee benn at deux ans cinq ans dix ans vingt ans nga dem ba fi nga xam ne mooy soixante-dix ans dem ba mu leer na yow fu mu toll nii pare nga léegi nag loolu di la dëxëñ di la dëxëñ ngay dem muy lekk fan yi lekk fan yi da ngay dem ba mujj yekk gestu rek gis ne ah ndeke yooyu yëpp jeex na yaa ngi jëm ci benn bés boo xam ne mooy bésu examen bi mooy yawmul xisaab maanaam bés bi nga xam ne mooy bés bu mujj bés boobu moom la yàlla di wax zalika yawma ma yawmul asir alal kafirina gayru yasir mooy bés bi nga xamante ne nekkul bés buy yomb zalika yawma idin yawmul asir bés la boo xam ne bés buy jafe la lay nekk parce que lu tax mooy yàlla bi mu la bindee dafa am lu mu la boole daf la jox temps jox la jamono jox na lépp mais yow fexe nga ba loolu mu la joxoon yëpp da nga ko jël sàgganee ko def ko ci benn poubelle léegi bi nga ko sàgganee ba def ko ci benn poubelle joxe résultat dafa jot joxe résultat bi mu jotee amoo résultat loolu moo tax bés boobu nag dafay ñëw nekk bés boo xam ne bés bu jafee ci yow ba pare yemut ci yow mooy ka alal kaafirina xayru yasiir ñi nga xam ne ñoo yéefee yi ak ñi nga xamante ni ñoo weddi yàlla ñi nga xam ne ñoo waroon def te luñ waroon def defuñu ko ñoom ñëpp bés bi dafay ñëw ju ñëw compliqué si ñoom nit ki nag nan ngay def pour dimbale sa bopp temps bi la yàlla jox nga xam noo koy organiser mooy il faut nga am lu ñuy wax barnaamis il faut que nga am emploi du temps boo xam ne pour sa dund la emploi du temps bi mooy man lan laa bëgg sama temps yi dama koy xaaj temps bi pour wàllu liggéey la temps bii pour jaamu yàlla la temps bi moom laay waxtaanee temps bi moom laay nangam temps bi moom laay nangam ba nga xam sa barnaamis parce que problème bi mooy borom xam-xam dañuy wax ne nit ñi problème bi ñu am yëpp yëpp yëpp lu ci gën a bëri ci seen temps benn affaire dong la mooy manque ambition mooy am hadaf boo xamante ne ni amuloo ko. wax ne man li tax yàlla ne mooy daf ma indi pour ma jaamu ko jaam gi dëgg wër yóbbu la ci xam ko li tax yàlla indi ma fi pour ma topp ko li tax yàlla indi ma fi pour àjjana ñett yi mooy yi la fi mais yii bi la fi yàlla indee xal àndaka yaani xal indaka euh, maanaam ndax am nga yow ci sa jëm bopp euh, plan boo xam ne da nga ko rëdd maanaam plan boo xam ne da nga ko rëdd pour mu yóbbu la ci li nga xamante ne ni loolu mooy sa devoir ci àdduna bi yow nangu nga ne yàlla moo la fi indi pour nga xam ko nangu yàlla moo la fi indi pour nga jaamu ko yàlla moo la fi indi pour liggéey d'accord léegi est-ce que rëdd nga plan boo xam ne moom moo lay yóbbu ci lii nga xamante ne ni xamal nga ko sa bopp su fekkee ne liggéey est yaa ngi maa ngi liggéey est-ce que maa ngi jàng est-ce que maa ngi jaamu yàlla loolu boroom borom xam-xam yi di wax bépp plan boo xam ne rëdd nañ ko te amul hadaf yi tamit dafay nekk loo xam ne lan lay nekk mu ne dafay wax ne am laamu ahlaamun wa umniyaat maanaam dafay nekk loo xam ne ay ay ay ay gént lay nekk rek ak ay mbébét te mébét moom newul la fi nekk parce que yàlla muy wax laysa bi ni amaaniyikum wala amaaniyi ahlil kitaab kullum képp koo xamante ne def nga dara maanaam képp koo xam ne amila say ijaabi yi képp ku jëf dara lu mu mënti mel dañ la koy fay kon euh, um ni yaa axlaam nekkul loo xam ne lu mën a téye doomu aadama bi la kon boo xoolee yii nga xam ne mooy am borom xam-xam bi dafay wax ne maanaam ñetti bés yi moo la doomu aadama bi adduniyaa salaasatu ayaamin maanaam bés adduna bi ñetti bés la te ñetti bés yi buñ ko waxee mooy temps mu ngi ci barab mu ngi ci jamono mu ngi ci lépp a ngi ci ñetti bët yi mu ne al yawm wal ams wal ghad maanaam démb la ak tey ak suba mu ne am su démb xis naahu walan yawut te wax na dëgg démb dund nañ ko te démb du ñëwaat est dégg loolu doon bàyyi doon wax ne euh, maanaam képp koo xam ne waman raama awdal am si yow man wa ay wama mooy fu waxee képp koo xam ne bëgg na jaayanteeg moom ci bëgg yenente yi mooy mu ne nga delloo si démb te xam ne delloo si démb ne loolu moo tax mu ne al am su démb xis naahu walan yawut démb dund nañ ko te démb moom du del siwaat léegi temps bi nga amoon ci démb 48 heures wala 24 heures yi nga amoon ci démb 24 heures yooyu loo ci def lépp perte na daxañu la kon guddeeg bëccëg bi liggéey nañ ci yow mu ne al yawm naayisu walan yaduum maanaam tey ñu ngi koy dund te tey nekkul luy sax parce que lu tax tey nekkut luy sax mooy ne tey dañ ko defal ay heure defal ko ay minute defal ko ay tiers yooyu moo tax tey nekkul luy sax mu ne xadan laa nadri ay nasanakun boobu mooy terminus bu suba duñu xam naka la comme yii moo seq doomu aadama mu ne pour nga nekk nit ku conscient mu ne maanaam nekkal nag dundin bu baax del baale del jëllale del jéggale del jëflanteeg nit ñi ci rafet te nga bàyyi mbindeef yi bàyyi leen ak seen borom yii moo seq doomu aadama bi moo tax muy ñun muy yéen kenn ku ci nekk si ñun war naa fexe xam ndeke ah man kat lii moo tax yàlla bind ma temps bi ma jox bu foor léegi temps bi mu la jox bu foor fexe nga yow ba am sëriñ sëriñ bi nga am daf lay dimbale pour orienter la yow ak temps bi nga am temps bi tege si yow pour xam noo koy defee parce que boo xoolee bàyyi bi muy wax daf ne maanaam nit ñi wasaa'il maanaam euh, jokkuwaay yi nga xam ne moo lay jokkale dem ci yàlla ñetti buntu la wasaa'il bu njëkk bi mooy nga topp yonent mu taabaatu nabi sallallahu alayhi wasallam fil xawli wala amal topp yonent bi sallallahu alayhi ci wax yi ak ci jëf yi ba pare mu indi dalil ne xul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni laa kon benn porte gi noonu su fekkee ne sa temps yow xool nga sa bopp ne man sama temps li ma ci nekk yëpp porte bi nga xam ne mooy sama wasila moom moo war a jokkale fi nga xam ne moo tax ma am boobu jokkuwuma ci xamal ne yaa ngi tardé ci sa ci dund. ñaareelu euh, euh, bunt bi wasayla bi mooy mu laazamata zikr maa isnin saxihin min al kumal mooy nga taqoo li nga xam ne mooy zikri te zikri buñ ko waxee mooy wirde yi nga xam ne yaa ngi koy am. yaa ngi dégg wirde yi bu ñu ko waxee tarixa tijaan yi moo nekk ci bopp bi ndax tarixa tijaan te wirde yi nga xam ne moom la la dëxañ jox la nga di ko liggéey suba ak ngoon rarement ngay gis tarixa boo xamante ne mën na la jox loolu kon mu laazamata zikri takkoo zikkar boobu yaa ngi koy amee ci ñu mat te ñu ko bu ñu waxee ci ñu ab mat mën nañ ci jublu Cheikh Ahmada Tidiane bàyyi indi dalil ne bir nafsaka ma allazina yaduuna rabbahum bil gadaati wal asi yuriduna wajha kon yàlla aaya boobu wax na ko mais mu ngi ko waxee ci deuxième point bi nga xamante ne yow nit ki pour sa temps bañ ko sàkk wàccal ci deuxième point bi nga topp kooku moo lay jëriñ ñetteel bi nag mu la mooy musahabatu aarif billaahi mooy nga topp aarif billaahi soo toppee aarif billaahi mooy ko xam yàlla mooy wattabe sa sabila man anaaba ilayya toppale yoon bi nga xamante ne nii moo dellu si man te yoon bi nga xam ne boo ko toppee moo dellu si yow daf lay dimbalee nga xam sa temps bi nga xam ne moom la la yàlla jox ci lan nga koy def loolu moo nekkoon kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy dénkaane ci point bi nga xam ne mooy bu njëkk bi ci waxtu amaana bu ñu amaatee point temps dina am beneen côté boo xam ne mën nañ ko ci dugg ci waxtaan bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla waa Melbourne comme ni ñu ko defee inter euh, interdire bi nga xam ne moom la ñu euh, sàkku ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen tawfiq wa ma zalika alaahi bi aziz wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, jërëjëf Cheikh Ahmad Tidiane Sow vraiment waxtaan bi gàtt na waaye bëri na maana ñu lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla waaye balaa ñuy tëj sa kàddu gu mujj lan lay doon ak lan ngay dénk ñi nga xamante ni mooy mbokki taalibe yi ñuy seetaan. waaw euh, euh, kàddu gu mujj gi mooy kant sant ak gërëm ak nasiixa boo xam ne maa ngi koy jox suma bopp di ko jox képp koo xam ne yaa ngi nekk taalibe mbokku taalibe ci faydu mooy nasiixa bi mooy ne. Euh, thème bi nga xam ne moom lañuy waxtaanee moom la ñu segg tuuti di ci waxtaanee mooy temps bi nga xamante ne moom la ñu yàlla may ginnaaw bi nga xam ne soobu nañ ci ba jàpp suñuy sëriñ li ñu war a nekk mooy dañu war a nekk ay exemplaire faydu bu njëkk ba comme niñ ko xamee maanaam porte la boo xam ne bu doon defar la ci loolu la nekk ba léegi mais moment bii da ngay gis nit fëgg ko dugg ci te defarwul ba pare dafay mujj di yàq parce que faydu su fekkee ne bu ñëwee ba dugg si déggoo mënatul am ci diggante taalibe yi lu ci gën a bëri faydu dem ba dugg si nga sóobu nga ne xam nga yàlla sa sëriñ yi réglé na la waaye le bi mu la réglé yow moom rek nga doyloo ku dul moom ku nekk golo nga ko def loolu nekkul loo xam ne mën na ma jëriñ man mën na jëriñ taalibe keneen yow bi nga jógee di tarbiya pour que nga nekk nit la bi nga jógee di ne damay am sëriñ pour que ma nekk nit la nekk nit ku mat loolu moo taxoon ma jóg jàpp sëriñ léegi bi ma jàppee sëriñ bi tamit ba fëgg sama buntu ne maay euh, wax li nga xam ne yow yaa ko wax waxoo ko léegi bi nga ci paree yow sa jikko lan la war a nekk dafa war a changer ci lu feeñ dafa war a changer ci lu nëbb parce que bàyyi nee na nit ki jàpp bi muy jàpp sëriñ da nga dem ba sëriñ bi daf lay dimbale nga am tegginu biir ak tegginu biti doo fa yem mu ne sëriñ bi dina la dimbale yi tamit ba nga mucc ci lépp loo xamante ne ni euh, contre la ak lépp loo xamante ne ni doya dal la mooy dina la mucc dimbale yi tamit da nga dem ba mucc ci pour pourquoi ak lan moo tax yooyu yëpp sëriñ dina la ci dimbale su fekkee nag loolu moo tax ñu jàpp sëriñ si donc loolu war na feeñ si ñun nañ dellu rafetal nañ dellu bëggante nañ dellu am yar am teggin parce que am yar am teggin mooy ni ma fonkee sama sëriñ noonu laay fonkee sëriñu jàmbur mais man dama fonk sama sëriñ beneen sëriñ bu dul sama sëriñ bi golo la donc loolu nekkul loo xam ne mën na dimbale taalibe bi nekkul loo xam ne mën na dimbale jullit bi nekkul sax loo xam ne mën na dimbale nit ki simple parce que nit ki pour nga nekk nit da ngay fexe mën nekk nit ci sa bopp yow xool ñi la jege nga jëflante ak ñoom xool société bi yëpp nga jëflante ñoom te loolu la koy dimbale mooy nga mën a dékku ñëpp kenn ku nekk lim gëm nga doyloo ko te yow li nga gëm nga gëm ko képp koo ci mën a waxtaanal nga waxtaanal ko ci boo ko ci mënee dolli dolli ko ci bu la ci mënee laaya biir mu laaya biir la ci jàpp naa ne loolu mooy dund bi te jàpp naa ne loolu mooy mission bi nga xamante ci la ñu tege muy kàddu yoo xam ne kàddu yu gàtt la ñu ngi santaat yàlla bu baax beneen yoon di gërëm comme niñ ko waxee amaana temps bu yeneen temps ñëwee waxtaan yi bu gënee xóot boobaa yooyu yëpp dinañ ci dugg pour jéem ci leeral tuuti tuuti asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam jërë ngeen jëf lii mooy liñ leen jëlale woon fii ci kër euh, Cheikh Ahmed Tidiane Sow ñu àndoon ak moom tey doon waxtaan ci point bu am am solo comme ni mu ko décortiquer muy al waxtu euh, dégg ngeen lim ci wax donc yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ñu ngi jaajëfal mboolem ñu ñu doon euh, teewlu ñu leen jox rendez-vous ci beneen i émission ak beneen i borom xam-xam salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah abonné leen ci seen chaîne MALBN bu leen fàtte bës bi ngir ngeen mën a am bépp xibaar bu aju ci wàllu faydu bi